asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm suba incha allah fële ci assemblée nationale ña fay xaar député yi suba la ñu fas yéene nag li ñattu lii nga xam ne moom mooy projet de loi bi nga xam ne njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar fay moom moo leen ko jébal ngir ñu xool naka la ñuy mën a tase lii di HCCT du haut conseil des collectivité territoriales ak tamit CSE du conseil économique social et environnemental jolikaay bii di si quotidien di ñu xamal ne su fekkente ne nag ki nga xam ne de moom mooy jomaay am na sañ-sañ gu mel noonu maanaam daal xam ne fële nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale amu dugal ab projet de loi su fekkente ne nag jomaay dafa doxalee noonu ndax du ab provocation goo xam ne daal daf koy provoqué ñi nga xam ne de ñoom ñooy député yi nga xam ne ñoom ñoo fa ëpp te tey ji ñu nekk ci l'opposition bi wala boog jomaay dafa bëgg am ab yoon goo xam ne daal daf cee fas yéene jaar ngir rek mën na sukkandiku ci loolu tas tasar moom mooy assemblée nationale li am ba desaar moom mooy ne fu mu nekk nii moom député ya nekk ca Benno Bokk Yaakaar toogatuñu taxawatuñu ndaxte nii nga xam ne noonu la Bassirou Diomaye Diakhar fay doxale ak ñoom dafa mel ni daal ne neexu leen dara waaye démb sax loolu moom moo tax ba ñu daal di amaloon nag benn ndaje ndaxte ñoom nee nañu fu mu nekk nii ña ngay toog di xaar kii di Ousmane Sonko ñëw ci assemblée nationale ngir def li nga xam ne moom mooy DPG di déclaration de politique générale defagu ko ñu ne déet ni waaye Diomaye di leen yóbbante nag benn projet de loi boo xam ne daal day tas ñaar ay kuréel yoo xam ne ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ko fi taxawaloon aujourd'hui kay bii di Sud Quotidien nekkoon fu mu nekk nii ñii nga xam ne de ñoom ñooy ay député rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca benn Bokk Yaakaar ñoom de ci jiixi jaaxa bu rëy la ñu nekkee ci biir aujourd'hui kay bii de Le Quotidien ñaar ñoo xam ne ay député la ñu woon di Moustapha Diakhaté ak tamit ki nga xam ne moom mooy Aliou Souaré ñoom daal dinañuy gis ne noonu nga xam ne moom la njiitu réew mi doxalee daal euh, jaarul yoon de dafa mel ni nag ne am na loo xam ne daal daal dina ko ci jalgati ndaxte ki nga xam ne de moom mooy Moustapha jaxate moom la ko wóor ba wóor moom mooy ne ci jomaay nii nga xam ne nag noonu la doxalee dafa daal di jalgati lépp lu jublu ci wàllu constitution euh, Aliou Souaré moom di xamle ne njiitu réew mi bu ko neexee mu daal di convoqué ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk euh, ci assemblée nationale ñu daal di amal benn session extraordinaire wante mënu leen jox bés goo xam ne nag dañ ko ci amal député ya nekk ca benn bokk yaakaar autolikaay bii di la sax mi ngi ña xamal ne ñoom tamit daal di nañ ñuy nag noonu nga xam ne noonu la njiitu réew mi daal di euh, doxalee loolu sax moom moo tax ba suñu moytuwulee suba dee plénière gën cee xaar mën na am sax du am ndaxte ñii nga xam ne de ñoom ñooy député yi dañoo fas yéene nag wéyal gatsa gatsa ba foofu nga xam ne moom mooy ca assemblée nationale ak coow li nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci wàllu tas bi nga xam ne dañ koo bëgg a tas ñaari kuréel yi di HCCT ak CSE Bougane Gueye Dany la mu ca gis moom mooy ne pëccëxoo ci boppam moom moo am nag ci boppu réew mi ñaari kuréel yooyu di HCCT ak tamit e. bi di l'info du ñu xamal ne nekk na ñaari kuréel yoo xam ne kenn bëggatu a gis nag fii ci biir eh, réew mi le soleil moom mu ngay ñëwaat ci ab ndaje goo xam ne nag jori gu njëkk gi di Ousmane Sonko moom moo ko jiite woon ñu ci waxtaanee wàllu séddale ndox bi fi xam ne nag moom mooy ci biir réew mi culikaay bi di le soleil du ñu xamal ne dina am ci lu tolloo ko fanweeri mesure yoo xam ne kon nguurub Sénégal dina ko ci jël koppar gi ñu soxla nag ngir liggéey boobu mucc ayëpp weesu na junni milliards nguurub Sénégal bëgg na tamit compagnie aérienne bi di Air Sénégal SA ñu def seen kéemtalaay kàttan ngir daal di koy suqali joriñ gi di El Hadj Malick Ndiaye moom moo ko daal di xamle ci biir colikaay bii di 24 heures suñu natango yi di ñu jottali ay kàddoom ndaxte moom daal di ne xamal ne nguurub Sénégal dina def kéemtalaay kàttanam ngir fexe nag ba Air Sénégal ñu daal di koy taxawalaat ba mu bokk ci compagnie aérienne yi nga xam ne dinañu leen ràññee ci biir réew mii jeexale ko ak mbirum faatu ba bakken Aziz Dabala ak tamit kii di Babacar Gano ñu gën ko xam ci tuuru Wali colikaay bii di la témoin mi ngi ñuy xamal tey ji naka la waa division des investigations criminelles daal doxalee ba nag teg loxo képp koo xam ne daal bokk nga ci ñi faat ñaar ñooñu ci biir colikaay bi di libération suñu naataango yi duñu xamal ne Nabou Leye ak ñeneen ñi nga xam ne dañu leen jàpp ci wàll gi ni mel parquet bu Pikine Guédiawaye daal di ne ñaan ñu ubbi ab information judiciaire ba pare ñu toppee leen nag li ñuy tuddee assassinat maanaam daal faat bakken ñoom ñëpp nag fi mu nekk nii ñu ngi ci mandat de dépôt lii moo nekkoon bokk ci li gën a fës yi ñu leen di ñaanal njeex te lu bës bonjour. Les députés sont convoqués demain à l'Assemblée nationale pour examiner le projet de loi portant suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Pour nos confrères du journal Sud Quotidien, le décret du chef de l'État convoquant l'Assemblée nationale est vraisemblablement parti pour mettre la représentation parlementaire sens dessus dessous pour cause alors qu'il ne détient pas sein de son camp. Le nouveau régime semble vouloir titiller son opposition par une mesure que certains pourraient assimiler à de la provocation. Et c'est le branle-bas de combat au sein de la majorité parlementaire Benno Bokk visiblement mise au défi euh, par le nouveau régime. Les députés du groupe parlementaire majoritaire ont été ainsi convoqués en réunion d'urgence hier. Cette convocation qui fait suite à la saisine du président de la République demandant devant aboutir à la suppression du HCCT et du CSE a poussé Abdoumbo, le président du groupe parlementaire Beno Bokriakar, à solliciter, compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence obligatoire de tous les députés membres, histoire de structurer la position du groupe majoritaire sur cette volonté affichée par le régime de Diomaye de mettre fin au CSE et au HCCT via l'Assemblée nationale. Maintenant, avec cette convocation de l'Assemblée nationale pour la suppression euh, de ces deux provocation ou simplement un subterfuge pour dissoudre l'Assemblée nationale. En tout cas, pour nos confrères du journal Le Sud Quotidien, la majorité parlementaire Benno Bokuyakar se trouve dans une situation difficile. Cette convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée euh, demain par le président concernant la procédure, nos confrères du journal Le Quotidien nous relaient les avis de Moustapha Diarraté et de Aliou Souaré. Pour Aliou Souaré, l'Assemblée nationale président de la République, mais celui-ci n'a aucune prérogative de lui fixer une date, sauf si c'est le cas pour la tenue de la première session d'une législature nouvellement élue. Quant à Moustapha Diakhaté, il conforte son ancien collègue Aliou Souaré, puisqu'il est convaincu que Diomaye a violé la Constitution. Également dans le quotidien LAS, les députés de Benobokuyakar dénoncent l'inélégance républicaine du président de la République. Et si l'on y prend Diawara et au vu de ce tollé soulevé par la convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire, Bougane Gueye trouve que c'est une vraie pagaille qui est au sommet de l'État. Pour Bougane, les priorités sont ailleurs avec la situation économique chaotique, l'insécurité galopante, le fleuve Sénégal qui sort de son lit, le spectre des inondations qui hante le sommet des populations et le scandale de l'ONAS sur fond de favoritisme et de corruption. leurs dernières heures. Le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil euh, des collectivités territoriales qui sont deux institutions au parcours différent mais avec un destin commun, celui d'être les mal-aimés de la République devant être sacrifiés à l'autel de la rationalisation des dépenses de l'État. Un conseil interministériel présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko s'est tenu hier sur la gestion de l'eau potable au Sénégal. Selon

Selon lui, l'État va tout faire pour sauver Air Sénégal et redynamiser la compagnie afin de développer ce qu'on appelle la stratégie du holding. Et nous terminons par cette affaire du double assassinat à Pikine Technopole. Nos confrères du quotidien Le Témoin nous expliquent aujourd'hui comment la DIC a décapité le gang des barbares. Nos confrères du journal Libération d'ajouter que le parquet de Pikine Guédiawaye a demandé l'ouverture d'une information judiciaire déféré hier Naboulé et compagnie en retour de parquet dans l'attente de la désignation d'un juge. Et dans le journal L'Observateur, nos confrères nous racontent le film du guet-apens tendu à Aziz Dabala. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.